léegi nag Choumer balaa ñoo dem publicité ba ñëw ci deuxième partie tës bi. Choumer. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. dama ne léegi El Hadj Mansour. Mm-hmm. dafa am benn koo xam ne ci nervi la bokk El euh, Hadj. ñu ñu ñu ñu laaj ko expliqué na carrément aussi. Euh, mbir mi daal maanaam nu muy demee recrutement yi ak ñoomin seen waaye nee na. cooli cooli yëpp. bu bu bu ñu jugoon euh, rey ñaari doomu aadama rek léegi léegi lépp daal di réglé waaw ah bon waaw kooku ne ko ku mel nan mu ne ko xam nga bu ñu jàppoon ku mel ni Ousmane Sonko wala bu ñu jàppoon Bougane Gueye Dany ñoom ñaar bu ñu ko defee bu lépp lépp dana réglé xam nga loolu nag nekk na loo xamante ni doyoo doyowaat nit koo xamante ni nii yow da ngaa taxaw nga ne nañ rey Ousmane ñu rey Bougane Gueye Dany ñaar ñooñu bu ñu leen éliminé woon rek réew mi yëpp dinañ nekk ci jàmm. loolu nag lu doy waar la. <laughs> man nag waxuma ko. nervi bi moom moo ko nañ ko déglu. booy ngeen di xaaraat tey. ñu baaxul xaaral ma de non démb dama ñibbi woon. Ah, da nga ñibbi démb dama ñibbi démb gars yi ñoo fanaanoon. xanaa euh, man maa xëy si. jox na mais tey stable na de trafic baa ngi dox normal. non mais booy booy dinañu si kanam dañoo mën a bàyyi noonu mbir mi day yomb. non booy dañuy muñ. bañ muñ. Amady booy dañuy yóbbu seen kër la ñuy wut. non yóbbu seen kër loolu nga yaakaar. Sénégal dama ne la fii bu ñu rayoon bu ñu rayoon Kanakan bu ñu rayoon Sonko rey Bougane Gueye Dany ñoom ñu rendil leen devant tout le monde. Mm. billaay dëkk rek. loolu nga yaakaar mooy dañoo am yenn occupation. nga yaakaar bu xeexee ñaari fan la ñuy dundal seen njaboot. loolu nga yaakaar. baax na. <laughs> nga réew moom. tey. nga réew moom. ñu ba. demoon ba toll fii réew bu demee moom ba toll fii moom yaakaar naa ne. <laughs> maa ko dul jox valeur sax kii duma ko commenté sax. en tout cas daal. ñàkk fayda yow. jar na jar na commenté nag ponkal mu ni wéy. toll ni sa baay sa liggéey. sëy sëy bu rafet nga judd yow. Ah. lim ponkal toll lu la neex di cent vingt kilos. nit woon na jox la dix mille. antan saako ceeb antan saako dugub antan mbaam lu mbaam antan nga antan ko. antan pono oto. dóori wo waar. naan da ngay dañu lay recruter pour ngay agresser ak di sàcc naan da ngay rendi nit yow ñuy rendi seen day jur leen ñu di jàmbaar di liggéeykat tekkee ci réew mi nga nekk fi yow amoo lenn looy booy booy yow wax yow jot na ku doya di nga ku ñàkk sagal see way jur ku ñàkk fayda yàgg ñi la recruter ñu ñàkk fayda ngeen ñu doya di ngeen ñu suufe ngeen ñàkk classe ak personnalité yow picc sax mënoo ko rey mais alaaji police beeg gendarmerie bi li ma wax ci télé bi dañ ci am part de responsabilité dañ ci am part de responsabilité déggoo ma mhm. mais yow nan ngay àndee ak nit ñoo xamante ni nii ay or la loi te ñu ne la alaaji. Mhm. yow lañ dénk suñuy loi yow lañ dénk suñu kaaraange. Mhm. nga ànd ñoo xam ni ay hors la lañu. Hmm. ci yàlla. dégg nga li ma la wax. Hmm. ci euh, yàlla Yasmine Kebe bu ma yónnee ti message bu mel nii foofu nag laa yem. démb sama benn grand message boobu la ma yónnee xam naa ne nag boo demee wàllum jege gi rek grand Ousmane Sow suñu coordonnateur boobu léeg-léeg ñu yónnee la ay message yoo xam ne moom alaaji mhm. ay xamal looy wax. ndeysaan ndeysaan xam nga. no ah, ah, cofeel la ce que est-ce que noppi di mhm. gënul. noppi cofeel la. waaw léegi ñëpp noppi. waaye mënuñu la noppi. waaw non dama lay laaj ndax. Sud FM bi mu fi nekkee rajo privé ba ndax ñoom dañoo noppi yoon ci élection de mille fa la joxe résultat alaaji en direct ci rajoy yi commencé. déggoo ma de. Walfak yi RFM ak ñoom ñoo ñëpp ñëw dugaat ci alaaji mille deux mille sept ba. deux mille sax Walf sax deux mille. waa ci deux mille sept bi laa waaw ak Walf deux mille ba. deux mille douze ba ñëw deux mille dix tey tey tey tey tey jii la wax nit ñi naan leen noppi leen a xamal fi ngay teg sa tànk ak xamal li ngay wax lan la ñuy wax. loolu mooy yàlla dal dëgg. jur jur ah? jur ah, jur nervi. billahi mooy yara dal. non Tijaan eh, Fay wax nga eh, dëgg de eh, loolu mooy yara dal. donc loo nee mm-hmm. jur muy dee. du yara dal te pourtant ñun olof yi. Mm-hmm. soo juree mu dee nga juraat mu dee nga juraat mu dee. mais moom dafa yara dal. Mm-hmm. mujj gi ngay tuddee ay tur yoo xam ne alaaji. kenn bëggul ak. ah nee na yaay pour pour doom ji pour kii des. mu toog mais yara dal weesuwul nga jur équipe bu football lépp nekk ay waxambaane punkal yu ne wéng entraîné ba ni tat. alaaj hmm? ñu ñëw fekk leen fa di leen jox ay trois mille quatre mille cinq mille naan leen hmm. dem leen ngeen tëcc ngeen dóor seen dëkkandoo yi moo tax ndongoloo ne jur lu ne léegi te fajul dara waaw moo yara dara wallaahi alalu barke mm-hmm. ndongo nee na mm-hmm. xoolal dañ lay jëriñoo rek waaye doo jëriñ sa bopp doo jëriñ sa bopp doo jëriñ say bopp aka mënoon a way aka dégg barke alxuraan dégg loolu wallaahi alalu borom barke ngi noonu. Mhm. Mhm. ñoom ñoo lay woo di la jëfandikoo imaginer may wax alaaj mhm. góor gu toll ni xale bi doon wax léegi te naan nañ leen rey Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany ñu rendi leen. ni leen rendi woon tam affaire bi du mujj fenn. dégg nga dégg nga dégg nga esprit bi. non fii Sénégal la lii du mujj fenn. li xew démb ci réew bi ku mu yeewul kenn dootul yeewu. nga ne yow du mujj fenn. borom magasin yi nga xam ni seeni alal alaaji. populaire xale bu jigéen bi mu bind ne dañ ko jam. mu dee mooy troisième bi. xale bii dee ci yëmbal xale bii dee ca dee ca bi ñoo na demal nga wax seeni mbokk ñoom ne leen ndax li xew démb du dara. Mm-hmm. li xew démb du dara. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. loolu de la wax. dégg loolu. yow nga ni góor gu ni léegi demoo liggéey. Mm. nga ñëw toog. xam nga ne jour journée journée yi ñu leen di ñu leen di ñu leen di. kii ñu alaaj ñu leen di fay. mais eh, alaaji bu bu yàlla dogaloon ñu ñu ñu ñu am métier. Hmm. journée wu lëmb. Hmm. góor gu ni wéng. wéng mën di def ñetti liggéey ci bis bi. Ah. France gi étudiants yi dañuy xëy alaaji jàngi. Ah. suñu wàccee. Hmm. ña nga ci restaurant yi. di raxas ay palaat. ña ay jaay ña lu ne ña ngi koy def. yu bëree bëri laa lay wax nii. xanaa xamoo ci la ñuy yónnee fii ñoom en tant que étudiant. ci bëccëg ñetti junni. waaw waaw booy tee ngaa ñëw ma lay fay bëccëg ñeenti junni bokk. booy. viens je te recrute ma lay fay ba ci ñeenti junni bokk. kii alaaji amul jom. yow yaa doy dégg nga loolu alaaji dégg nga loolu. Hmm? kooku. Bougane Gueye Dany ji. voilà a ah, dafa ñëw mais alaaji. waaw alaaji ngay jël abaa. il faut ñu insister ni Ousmane Sonko kenn gisu ko. nañu koy wax Ousmane Sonko kenn gisu ko ay avocat am ñu ngi ci buntu fi ñu ko woolu 9h passé na ba teg 26 minutes. te kenn kenn gis ko kenn xamul fu nekk loolu benn la ñaareel bi ci des. dañu continuer di dénoncer ñu Guy Marius bi ñu ko yóbboo prison dañu ko futti ba mu ni dum mhm. ba mel ni ko ndeyam jure woon dugal ko ci benn isolement bàyyi ko fa moom kese loolu nag dañuy continuer di ko wax di ko dénoncer di ko ñaawlu di ko métitlu très bien jeex na l'info du jour kon mi ngi noonu nag Ousmane Sonko introuvable euh, ana trafic bi waaw El Hadj waaw euh, Ale waaw xam nga nervi bii doon wax alaaji dinañu wër wër turam am na ñoo xam ne dañ naan tës dañ ñuy suturaal alaaji mhm. am na ñoo xam ne dañoo war a wër seen i tur parce que ëllëg a tax mhm, mhm. ku menacé nit dee alaaji waaw dañ lay nit ñi dañoo war a xam sa tur yóbbu la police wala gendarmerie wala nit ñëpp xam ne mor sax da ci plainte xam yaay dégg xam yaay lu dal bu gàngee dani wala lu dal sonko yow yaa waxoon na ñii nañ leen rendi dëgg la wala dëgg dégg nga dégg nga pap pap waaw maa ngi dégg bu deuxième partie wu bi nag alaaj mhm. mook bii daanaka benn la ñaari tur bind nañ seen tur mhm. dégg nañ leen seen groupe whatsapp mhm. ñuy wax ah waaw waaw wax nga dëgg tudd na ñaar kenn ki moom réerugum na muy Ousmane Sonko dégg nga alaaj <laughs> si groupe bi si groupe whatsapp bi waaw ñaari tur yi deuxième partie bi dama leen di tudd ndax ñoom ñaar ñii ñoom it dañu ne. Euh, ay dara lii ak lii ak lii ak lii. ba ca la xew démb ca géejawaay. te man démb géejawaay ba ma fay dem. boobu après midi après après midi ba la. waaw yéen nag yéen moom seen tur dañ koy tudd. comme que yéen ngeen a joxe seen tur. fa ngeen doon waxtaanee. nit ñi xam nañ seen tur te xam nañ fi ngeen dëkk. ñu ne. ñu ni la xew géejawaay ak élèves yi fa génn. Ahmed Aïdara la. Ah. élèves yi génn yëpp yëpp yëpp yëpp ci mim réew alaaji man mën naa leen a génne. <laughs> loolu moo waxi dof li xale yi di wax waxi dof. loolu da waxi dof. waxi léegi nag. xanaa yaa yaa bi foofu. ku tudd ah man kat man man ndekete man bëri naa doole kon. Hmm. xaw ma sama doole yegg na foofu géej waaye. ku tudd Karim Faye alaaji. waaw ak ku tudd Mamadou Loum. waaw bokkul nag ak sama Mamadou Loum bu si ah, Sida Jonko. suñu suñu bopp sama rakk Karim fay yow yaag Mamadou Loum su ma jox ñu Karim ba pare. gis ngeen Aïdara Ahmed Aïdara mi lu taal dëkk moo ko taal lu taal géejooy moo ko taal bu xale génne di dem ba kër Alioune sàll moom moomu la ndax moom moom moom moo xam moo xam moo xam moo xam ma matt mi ci taal bi waaw ñu toog di ko seetaan rek lu ko lu ko lu ko neex mu def lu ko neex mu wax lu ko neex mu kii mais ñun ñun bu yàggee léegi ñun lu ne ñun kon li ñun doon matawuñ ko. politique day dem day dem ba nga xam ne day dañ la sës waaw na sës rëkk waaw ba loo am jël waaye bu ñu bëggee politique politique nañ ko bàyyi ak yàlla nañ ko bàyyi yàlla loolu du dem du ñu dem de du ñu dem de fii ñu ne dégg rek la naan dégg nam soow. Euh, Soumer. léegi nu muy def alaaji koo na du ñu seetaan léegi nu ñuy def. li ñuy def moom nag la Mamadou Loum wax. ca biir groupe ba ba tey ñëwal. salaamaaleykum fidèle ci Aliou man la Loum maa dellu si waat Karim maa ngi rafetlu bu baax ci li nga wax Karim fay gis nga politique boo demee ba nga xamante ni si ñaar yuy nekk ci politique nekkul ci yow kon say woo nga bàyyi politique politique ñaar moo ko lal xam nga ñun dañuy ay produit pees dañoo xam politique bu baax ñun ay produit pees lañ ñaar dafay nekk ci yow boo bëggee def politique muy caay-caay day nekk ci yow ñaar caay-caay caay gi nga xamante da nga koy denc bu jaree génnee nga génnee ko ak caay-caay gi nga xam si da nga koy nëbb kenn bañ koo xam ci yow jamono bii dañoo toll fa nga xamante ni caay-caay gi nekk yow danga koy génnee génnee say arme xeex xeex rek la xeex ki njëkk a dóor gañe na li ci des fekk na c'est trop tard Ahmed Aïdara niñ ko bàyyee def dafa ëpp Ahmed Aïdara ñu jox ko micro lu ko neex wax lu ko neex wax man dama koy déglu ba mu yàgg man dama naan non non non mais dafa am la nga xam dafa ëpp quoi mais dafa am la nga xam ne dafa ëpp ñun waa Géejawaay Ahmed Aïdara mais mais mais xoolal tësam rek li mu koy li mu koy li mu koy li mu koy li mu koy li mu koy tëjee tësam tësu Ahmed Aïdara xool leen li mu koy tëjee ay suul gaz du ko tere deuxième mandat kenn dafa tudd Géejawaay nangam ak nangam wala nangam ak nangam mais quand même gars yi nag am na la nga xamante ni si nag ñun ngi bëgg a ñàkk fayda ah. ou bien monsieur le maire ñun dinañ wax bu fekkee ñun ñi nga xamante ni si dañoo topp sa ginnaaw bëgg la lool te gaa yi duñ génn dégg kenn gi si wax ko as ñoom ñi si am dara ñoom duñ euh, dégg kenn wax si dara asamaan ñun dama ni gars yi nañu génn xool li ñuy def ñu def ko wala panel bi ndër bi dafa waroon fekk mu xumb ñu xool nan la ñuy def wala ñu xo génnee les résultats mais kenn du duñu toog ku nekk toog sa roq ni moggu kenn waxul nag bu ñu demee ba suba ba ginnaaw suba yëpp jeex ku si nekk naan maa ngi nuyu Aliou Sall ak di ko gërëm waxuñu loolu dañ nañu génne suñu ay solution ñu xool lii nuñ koy defe Aliou Sall kenn waru ko laal panel bi fii géejawaay kenn la waru laal Aliou Sall. waxi dof du ma ko commenté waxi dof waxi dof. dof jox ma leneen. waxi dof yow nga juddoo yow nga juddoo géejawaay amit juddoo géejawaay ngay topp ku juddoowul géejawaay di yuuxu yow kay def ko rek. mën ko déggoo sax wax ji dafa ne dafa ne. maanaam ñi ci am ñi ciy am dara muyewuñ la mayo asama ñi ci amul dara yow ngay socialiste. Azu Mbodj Azu Mbodj damal gisanteeg waa géej wayu bokk comme yow yaay dox di rente waat digg ba Azu Mbodj. mooy kan audio bu njëkk bi Azu mooy ki bëgg rente Sonko ak Bougane. ah noonu la ah, tudd ah la tudd. Mhm. alaay tamit yow mën nga lijjanti la yónnee turam. ci audio bi gaa yi teg mu ngi ci. audio ban bu njëkk bi. wax na turam. asu mboj alaaj am nga nopp de alaaj ki nga amee nii nopp nag yow asu mboj euh, dégg nga loolu alaaj uh-huh. léegi nag euh, réew mi te dañoo yaakaar ne ñoom ñoo moom réew mi dina leer lii nekku fi mbetteel ñu ngi fàttaliku laas ak vingt quatre heures alaaji hmm. taxul ba tey nit ñaa ngi wax mooy wax mu naan ay suul gaz du ko teree xeeñ ak troisième mandat kon loolu ndeke naqari na leen. Mhm. ah bon. Assou Mbodj man loolu man dama doon fore rek yow man ma ne woon sax dama koy mujju baay ndey comme que loolu naqari na leen tey ngeen gën a dee. Hmm. nañ leen nañ nañ leen reen di bugaan reen di sonko te ko ne trois jours la ñuy wax rek lépp jeex. pour man yi ñuy wax ni yëpp détourner attention nit ñi la rek. détour nit ñi kenn mënul détourner seen attention. parce que coow li coow fi mu toll nii xoolal sonko la. jàpp sonko. ani sonko ak libéré sonko. waaw gaa nag dañ ciy boole yoo xam ni. détourner attention nit ñi nit ñi wax ci leneen. waaw non mais mais mais mais wax nag ci affaire libération sonko ak complot beeg yooyu. waaw ñooñu la ñuy tancé. non non non alaaji ñooñu tant que noppi wuñu tant mais dossier bi kenn du ko fàtte. kenn mën na fi noppiloo kenn. waaw non voilà léegi nag ñoom ñooñu lañ bëgg a noppiloo moo tax ma ne la nekkul affaire ci biir affaire de. ñoom ñoo créé affaire ci biir affaire. ñoo créé manifestation interdite ci biir viol. déggoo ma de ñoom ñoo créé benn affaire ci biir affaire pour ñu fàttalee comme l'a di l'autre jour euh, maître Bamba dossier ba comme que daa vide nañ ko wutal ab dossier woo xamante ni du vide. benn avocat nee na ma. Mhm. benn avocat nee na ma. Mhm. dossier Sonko bi xam nan la mu jëmel ci gouvernement mhm. alaaj nen bu ñu waroon a boof te boofuñu ko. togguñu ko. nomletuñ ko baxaluñ ko. bu yàggee xam lu muy def. day mujj nëb. Mm. waaw. dégg nga mu ne dossier baa mujj dem a dem a dem a dem a dem ba mujj nëb seeni loxo. <laughs> dégg waaye nag pompiteer yi nga xam ne dañu koo jëndi woon ak euh, masiti ak soble si ak diw ja wala beurre bi te ñu bëggoon ko koo mais du yàqoo noonu il faut ñu dem wuti ay dogu yàpp dégg nga sajat ko def ko ci biir def ko ci mu remplacer nen bi oui ñu kii ko ñu ñu ñu tàng naa ko alaaji mais nen bi moom mënuñu ko sànni parce que yi war a àndal dajale nañ ko waaw waaw pour togg waa mu ñor déggoo ma de mhm. léegi nag loolu lañ dem noonu wuti ndawal li waaw mooy tere manifestation bi ak trouble à l'ordre public. léegi moom la ñuy indi def ci biir soble si def ci pompiteer bi def ci diw ba wala bër ba bu ko defee def seenu mburu ñoom ñu séddoo lekk ba suur. boo ma waxee loolu dama lay delloo ci histoire tabaski histoire tabaski bi yàlla di intervenir. ca xarma ca Ismaïl parce que Seydina Ibrahim teg woon na ci ci baatu. Seydina Ismaïl. allahu akbar ba muy dawal la Jibril génn na Seydina Ismaïl dugal xar mi mu gëmmu di dawal. te xamul ni boobu am xar lay rendi allahu akbar wax leen diggante xàcceeg dóor allahu akbar yàlla xaj na fa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu yàlla may mujj gu rafet amin amin mujj rafet amin amin amin waaw amiin allah muccal nu muccal sunu njaboot amiin allah yàlla am na yoo xam ni ku ko engagé ci réew nga. nga yabaate moom. yabaate. mënta mën ta weesu nga naan. lu ne dafay xew te xoolal affaire bi du mujj fenn. Mm, mm. wala xoolal diw ak diw sax tey bu ñu leen rendi woon ray leen tamit mbir mi du mujj fenn yow wér nga. xale yi lu ñu lekk la ñuy wuti. xale yi lu ñu lekk la ñuy wuti boo boo bëggee loo lekk doo liggéey. Mm. ok. ah. <laughs> non. ñoom ñooy sàcc. ñoom ñooy sàcc nga naan la. non ñoom ñoom ñooñu ñooy sàcc yi non ñoom ñooy sàcc yi ñi jaxasoo ci biir manifestation yi ñooy sàcc yi dama ne alaaji même gis nga signaux yi ñu dagg nii télé yeeg seen TV ak euh, Walf ak Walfadjri ak ak ak YouTube bi ak réseaux sociaux lii lépp alaaji pour nit ñi jublu ci leneen la genre mantulaay gi nga xam ne bu ñu sëggee ci téléphone duñ siggi c'est ça fi mu nii tey dañuy mel ni ko dof c'est ça ñoom seen problème yëpp mooy na téléphone bi ñëwaat c'est ça mm-hmm. xam nga voilà léegi nag xoolal Mantoulaye tey fii ba ngoon ku mu woo allo waaye yow booy fiis yow sa whatsapp bi mi ngi ñëw mhm. pourtant même man mi ñëwul di waaye yow yow waaru woo allo tonton Sall man la mantu xeetu détournation la de xoolal eh, eh mën nga toog genn tey genn wàllu journée alaaj mhm. lii xew tey doo ci wax dégg mhm. xew tey doo ci wax laa la wax waaye nag comme ni ñu waxee lii yëpp ay diversion la. bu ñu jug ci li fi xew. di ko wax. dafa am benn kilifa goo xam ne ci ñoom la sax ci ñoom la. alaaji daf ma mës a wax deux mille fin deux mille onze. mu ne ma Ameth. ñu la mag a fi ne. ñu la jiitu ci métier bee fi ne. ñu la dàq jàng ñoo fi ne. ñu la ëpp diplôme ñoo fi ne. say maître a fi ne. mais xam nga lan moo tax boo leen xëyee macha nekk ci yéen. Mhm. deux mille deux mille non non boobu falu nañ deux mille treize non non boobu falu deux mille onze. Mhm. ñëpp nekk ci yéen. Mhm. est-ce que xam nga lan moo parce que vous êtes du côté du peuple. tout court. <laughs> alaaji mu ne ma bis bu àdduna di dox di dox di dox di dox di dox ba ngeen bàyyi le peuple fari feneen xoolal. nit ñi ñiñ def ñeneen ñi lañ leen di def. Mhm. doo leen mhm. jaar fenn ñu ne mhm. cëm. ndaanaan laa ngi ne leen. même ñi nga xam ne dañ leen contre bu ñu xëyee suba teel yéen waa PDS yéen la ñuy déglu. même waa PDS yéen la ñuy déglu yéen waa Zik. obligé déggal déggal loolu alaaj te jamono. xoolal bëgguñ leen. Ali Faye song na buggaan ci kanamu Ablaye Wade ci ci ci ci ci ci ci audience. ne ko ñii ñooy taal réew mi. ñoo yor moto yi. <laughs> mooy waa Zik FM ak waa Sen TV bu leen leen jàppale ay nangam lañu dégg loolu alaaj waaw xoolal loolu yëpp punkal ma wax ma ko aduna di dox di dox di dox di dox di dox mm-hmm. ba punkal ma ma dajeeg moom Kaffrine mu ne ma yéen foo leen far <laughs> ma ne ko ñin ñin yow lañ faral mu ne ah non non non ñin kay yéen kay faraloo leen ñu ma ko si seen parti di ko tooñ mm-hmm. mu ne ma ah non non da ngeen a war a ñëw nag jàpp ci ma ne kon non ñin nous sommes du côté du peuple. foog ñu fekkoon. et c'est vous. qui nous demandiez. Mm-hmm. d'être toujours du côté du peuple. mu ne ma waaw. mais yéen ñin ñin ñin ñin ñooy peuple bi parce que majorité peuple bi yëpp ci ci ñin lañ far mooy APR. kon yéen vous n'êtes pas du côté du peuple yéen vous êtes du côté de la minorité. Mm-hmm. dégg nga analyse boobu. ma ne ko non ñun ñun dem minorité waruñ dem majorité ñun dañoo war a dem ci peuple bi peuple bi nag dafa ëmb majorité. Mhm. ëmb tamit mhm. minorité. Mhm. ëmb les sans voix. ëmb ñi nga xam ne voté wuñu. déggoo ma de. am na ñu am carte d'identité duñ voté. lacrymogène yaa ngi tàkk côté centenaire. encore lakk nañu itam euh, tribunal salle audience bu tribunal bu Diourbel. ci waawoon boo yaa ngi def manifestation. mar d'Italie. ah. léegi man maay sa biir ki ñëw continuer waxtaan bi. dégg nga loolu. Mm-hmm.